bokk internet yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte ak contentement di jàkkaarloog yéen tey nag ñoo ngi fii Cambérène ah, suñu appelu maam muy Seydina Limamou Laye Almadiou muy 143e appel gis ngeen weex rek ngeen di gis kase kase mu bëri nit loolu fidèle yëpp a ngi fi nee naa ku dul laayeen sax yaa ngi fi tey wuy si suñu appelu maam bi da ngeen may may rek ma dugg xool ci biir da xam naa ne fii moom tey ah laay ma taal laay Seydina rek ngay déglu ci kanama kanama kanam yàlla fekk loo ay ati at neex na macha allah mhm. neex na torop maa ngi ñaan daal lépp lu ci waay ñaan yàlla ne ko yàlla nungul mhm. ci barke yonente bi mhm. yàlla na yàlla saafara jàngoro yëpp ku fi ñëw indi fi jàngoro yàlla na ko yàlla saafara yàlla defal ñu li ñu bëgg man daal mënu wax lépp daal mënu ko wax kontaan naa daal macha allah. jërëjëf ba ma xool ma xool ci fidèles yi kaay Duudu toppil ma papa ñoo ngi lay nuyu. maa leen di ziar. Mhm. Laye Makhtar Laye Makhtar ñu fekk la suñu woote maam bi àdduna ñooy ñëw nee naa du laayeen kese ñooy ñëw. waaw loolu ki woote waxoon na ko. Mhm. prévoir na yépp parce que war na ñu yaatal sàkket yi jan yaa ngi ñëw. Mhm. donc si loolu lañ nekk actuellement nii quoi dama mënewul wax na ci kii moo tax. jërëjëf <laughs> bi ñoo ngi lay nuyu. <laughs> Makhtar. ay Saliou. da ngeen mooy yëg-yëg bi. waaw yëg-yëg de mooy wuy si woteeb Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wasalaam bi. xam ne moo ni won ajibu daa yallaahi yaa maxcharal insi wal jinni inni rasulullahi fu mbokk ak taalibe nekk wuy si woote bi di yeesalal sunu appartenance si la communauté Layène. waaw eh, développement wax mooy thème bi. waaw développement moom ku xam Seydina Limaamul Mahdi yu xam njabootam. xam ne ñëpp yar na leen si liggéey ak diina ak dal te développement defe naa ni jàmm si jëkk bu jàmm amee rek développement am te bu dee bay moom bay exilaayan defe naa foofu la jàmm yam bañ naan ko ba dee jàmmalaay lu weex jàmm yàlla nu yàlla defal jàmm. jërëjëf jërëjëf Doudou ba léegi danga may toppaat ak waa Tacko TV sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax. Uh-huh. jàkkaarloo mbokk internet yi lay seetaan. waaw tey bi dañu ñëw bis boo xam bis mbégte la moom bis ba boo xamante ni moom ku si ñëw ko ne da nga kontaan. ndax dañ nekk nit ñoo xamante ni ba juddoo ba léegi gisuñu Baye Laye gisuñu Seydina Issa mais boole naa ak Serif Abdoulaye sëtami ba fi mu toll nii njabootu Abdoulaye nu nekk nuñu ñu yiw nit ñu baax te diine ji moom xaala naka xaala boo xamante ni këru diine yëpp sëñ Ablaye xaala na fa te yàlla na nu ko yàlla fayal yàlla na nu bàyyi laay teenu du ñu teeru ba ko nu koy fekki loolu rek laa am loolu ma bis moom réen moom neex na torop si ñëw noo ngi sant sunu borom bu baax a baax. ñu ñëw ñu bañ koo tardé incha allah. tey tey bi mooy PL développement. Mhm. tey loolu la ñu indi si appel bi. waaw tey ren loolooy lii bi kay loolooy thème bi incha allah de suba euh, Mamadou Lamine Lahi ak euh, Mame Libaas naa see waxtaane incha allah. merci beaucoup. Euh, Doudou topp ma soxna si ñoom. maa leen di fay. Laay Maxtaan. Laay Laay. may Madina Laay Alassane. tey ñu fekk la ci appelu sunu maam Seydina Limaamu Laay at mat waaw dañuy ñaan yàlla di koy fekk ay at yu bëri parce li ñu wax rek woote bi du daj tey sax day neex te Seydina Limaamu ku nekk xam na ne mooy mooy mooy resooru laay ko ku ko gëm ba tax na ñun dañ cee juddu maanaam daal mënu ma wax parce que man dama ci xer lool te lu tax ma gëm ko mooy fii lu ma fi ñaan rek ren balaa dewen yàlla daf ma koy nangu. tey lan nga yëg. tey jëg naa lu lu fort parce que bu ma duggee fii gëm naa ne kii tëdd fii mooy naa isaa fii ci Cambérène te fii lu ma lu fi waay ñëw ñaan rek day nangu. ñu bëgg rek ñépp ñëw di woote di wuyu fii ku fi ñëwul gëm tamit na nga ñëw fii pour xéwalu. dëggal waxi bàyyi laay mi xam ne mooy keneen. soxna si soxna si nuyu naa la. ça maa ngi mhm, ñu fekk la ci appel bi nga wuyu si appelu suñu maam Seydina Limaamu Laay. ah dañoo kontaan rek franchement fa dëgg neex yàlla kontaan nañ ñëw fii fekk si suñu maam ziyaar ko ñaan suñu soxla yàlla fajal ñu ko man moom franchement dama kontaan. ma kontaan ma la ma moom Tijaan laa mais dama bëgg laayeen nee naa ma waroon duggaat si beneen tarixa si laayeen laay dugg franchement dama kontaan ñëw fii fekk fii li tax ñu naan appel franchement gis nañ ko fii nde gis nañ nit ñi ni yaatoo nga ñëw waxtaan ka foore dugg si biir kër yi ñu dalal la yow doo am stress daal da ngay xam fii diine ak l'islam moo fi am te ñun loolu loolu Sénégal loolu lañ bëgg diine ak l'islam nit ñi nekk benn jàmm ak salaam am fi daal kontaan nañ daal appel bu baax li tax ñuy wax appel daal moom franchement gis nañ ko fi jërëjëf ñu ñëw ñu bañ koo tardé incha allah. tey tey bu mooy paix développement. Mhm. loolu la ñu indi bi. waaw tey ren loolooy loolooy lii bi kay loolooy allah déwén suba euh, Mamadou Lamine Lahi ak li euh, Libasse naa see waxtaanee incha allah. Merci beaucoup. De rien. Okay.